asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla dolli jàmm ci biir réew mi ak ci bitim réew eh, di leen ñaanal suñu boroom defal leen koor jàmm te di baal ñëpp ak jéggal nañu ñëpp di jéggalu ñëpp ci koor gi ñaan suñu borom nangul ñu mboolem suñuy jàmm yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Abdou Khadir Ndiaye moom ngeen jàkkaarlool noonu Ndiaye na koor gi moo tax bi weer bi tàmbalee ba léegi mu mu tëju amee njaay nii moom mooy loolu sëñ Abdou Khadre gannaaw nuyoo bi dañuy daal di jublu ci actualité comme ni ñu ko daan defee ñëw dellu si ci actualité yi nga xamante ne moom moo xew-xew jamono rek ak liy xew ci réew mi sëñ Abdou Khadre ci ak biir actualité yi nag tey xam naa liñ ci xam ne moom lañ siy jiital mooy loo xam ne da nga ko waxoon euh, mën nañ ne un mois avant un avant mooy sa dernière émission bi nga xam si ne def nañ nga ko def naa war na mat un mois bi ko defeek léegi nga am loo ci waxoon jëmoon ci ñi nga xamante si ne ñoo nekk ci état bi wala ñi jege Macky Sall di liggéey ak ñoom mu mel na loole am na ay xew-xew yu ca xew yoo xamante ne waxoon nga ne dana xew wala boog dana am yu ci xew quoi yooya mën nañ ne am na ci yoo xam ne teg nañ ci sunu bët waaye ba tey it nga waxoon ci ku ci mel ne soxna Aida Diallo nga ne woon moom itam am na ay jafe-jafe yoo xam ne moo ngi koy yoot jafe yooyu nag bokk nañ ci sax ay jafe-jafe koppar yoo xam ne si ne mën na man mën na ko dal daal. man jàngat nga def ci maanaam wax jooju nga xam ne waxoon ko ko un mois avant tey sunu borom dogal daal mu mel ne ñi ngi ciy teg bët. Euh, jërëjëf sëñ maam Thierno am naa dégg naa la ngay tooñ nag waaye boo defu ndànk fi ñiy seetaan dinaa wax fa ma la bett ngay ndékki de <laughs> jërëjëf macha allah laaj bi am na solo lool. actualité bi nag sëñ maam Thierno li ci gën a fees mooy waxuma ko nag euh, ngir bëggub dërëm ci kenn waxuma ko it ngir bëgg ku ma woo ndax li ñu yor moo tax namuñu dara muy alquran. soxlu ci kenn lenn waaye sa mbokkum jullit eh, nga gisal ko jafe-jafe muy dikk nga fexe ba wax ko ko yegge ko ko mu jëlaat matuwaay ci boppam loolu liggéeyal yàlla ju kawe da cee nekk ba tax na sëñ maam Thierno eh, damay wax ne nguur gi fi nekk kenn ku si ne nag na nga jàpp ne yow la waaye juróomi ponk lañ ci yoo xam ne nañu jëlaat ay matuwaay seen bopp mën naa cee bañ a xóot lool ndax damaa yaakaar ne nit bu demee bu amee gàllaaj dem ba tàmbali koo ñàkk bu ko kenn wax war na koo mën a xam waaye juróomi ponk lañ ci yoo xam ne bu ñu deful ndànk jafe-jafe bu rëy mi ngi dikk seen kanam te àgg nañ ci daanaka. nguur gi fi nekk maanaam gouvernement wu président Macky Sall bi nga xamante si ne moom moo fi nekk nii di mm-hmm. doxal. waaw juróomi nit. wala juróomi ministre wala juróomi kilifa ñoo ngi ci ñoo xamante si ne jafe-jafe moo ngi waaj di dal seen kaw. di dal seen kaw euh, mën nañ cee tudd ñaar nag ñoo xam ne waxuma ko ngir dara waaye dama leen di euh, laabiire rek donte ñun moom taxut sax ñu kii daanaka ñoom suñuy kilifa lañ muy Malick Sall. bu fekkee mi may ministre de la justice. waaw monsieur ak Samba Sall. limay wax nak buñu ko doye dalé deug la ab dong rek kay wax wa buñu ko doye dalé ba sag ne ko waxtu yi néew danañ ag ci li ma la wax ñaar ñi ngay xam ne jot nga leen tudd muy ku ci mel doyen du justice Samba Sall ak ministre de la justice mm, Malik Sall euh, ñom ñaar ñoñu bo nee gisal nga leen jafe-jafe jafe-jafe boobu man ndax man nañu xam ban saaru jafe-jafe la c'est-à-dire pour ñu génn leen ci seen poste yi maanaam nangu poste yi nga xam si ne moom lañ yore woon wala jafe-jafe wu yaram la wala lan ak naka nga ko gisee naka nga ko mën a xamee loolu. ñàkk bërëb yiñ ñu toog mooy li si gën a ndaw. mooy li gën a ndaw ci li leen mën a dal. yàlla xam na ko. perte seen liggéey. mooy li ci gën a ndaw. leneen la sa des nag moom wal xiyaasu billah kon ci deuxième bi ki nga doon wax muy te nga tudd turam muy soxna da moom lan nga wax ci ay mbiram. bu dee mi ngi may dégg moom it na jël ay matuwaay yu wér ci boppam na sangatu jiwaat xam mu am na sëriñ xam mu amut sëriñ nag waaye bu dee am na ko na dem sangatu jiwaat na waajalaat boppam maa ngi koy laabiire lenn it bu dee daa tooñ kilifa loolu duma ci xóot moom xam na ndax ay dajaal la duggoogu gone ku tooñ kilifa xam nga ko ku ko tooñu tamit xam nga ko bu la ko nit ñi waxee xam nga ko bu la ko nit ñu waxut xam nga ko kon loolu moom moom mooy xool rek mooy siseel boppam waaye bu dee daa tooñ kilifa na dem jéggulu ci te ne sàngatuwaat jug ci boppam bu ko deful nag man Abdou Khadir maa ko wax dana ci teg bët maam Thierno waxtu ma yàlla nattoo ba ma toog fii ci télé wax loo xam ne dañ ca yàgg duñ ko gis danaa bàyyi ñaan man du ma sëriñ si nga xam ne dañuy toog naan lii ngi ñëw ñu dem bàgg suñu naan ana li waxoon waaye li am solo ba am solo mooy lépp lu may wax nañ koy dégg fi mu ne lii ngay laajaat ni question bii waxoon naa ci mm-hmm. yaakaar naa la ma ci waxoon moom kenn du nattable naan gis nañ ko gisuñu ko ndax yaa ko waxee sa bopp mm-hmm. ñaanuñu ko yàlla nag ndax euh, wallaay laxsim su sañoon du ma euh, nekk di wax ci lu ñëwagut euh, ndax war warmaal naa kilifa yi war warmaal naa yi doomu kilifa yi nga xam ne ñoom la ñuy wax naan jafe-jafe ngi ñëw seen kanam waaye man boo gisee heure su may wax sax du ma wax ne euh, du ma jékki-jékki rek diw day def nangam ak yooyu jaar ci digg bi dama naan la jafe xam nga jafe-jafe nag mën naa dikkee nu ne la ma jubli ci wax gi nag du leen lenn lu may rek bëgg ñu xam ba dimbale seen bopp ci dem wuti ñaan ndax ñaan at aussi ad-du'a usilaa'un mu'minin loolu la ti bi wax yàlla xam na ne loolu rek lañ jubli ci wax gi pour wax ko seeni borom dégg mën a demaat jël si ay matuwaay seen bopp ndax ñoom it bu ñu nee ci réew mi di dund loolu suñu arrangement la ñun ñëpp mm-hmm. ndax fii koo fi ŋàññi ba na baaxut timit yàlla man na laa dimbale bu newee ci réew mi na fee indi doom baax bu ko defee loolu it mën naa bàyyi xel bu dee nag euh, euh, ki nga xam ne tuddoon nañ ko te yàlla dogal néewatu fi ñu ngi koy ñaan yàlla na yàlla dolli yërmande ci kawam muy Samba Sall yàlla na yàlla dolli yërmande ci kawam yàlla bu ko yàlla topp dara beneen bi yéen muy soxna Aida Diallo mm-hmm. Euh, jafe-jafe boobu ngay wax ci wàllu alalam man ma waxoon naa nee naa jafe-jafe mi ngi ñëw bu rëy damaa xamul nag ndax jotoon naa ko wax ci internet am déet waaye yow mi wax naa la ne ci wàllu alalam internet bi waaw. loolu it lañ ci jublu woon du caagi nekk dañoo bëggoon mu am donte sax nag mi dégg naa mi ngi tàmbalee am jafe ci wàllu alalam ak xamuma kan ak kan waaye loolu yàlla na yàlla leeral ko naañ ba jotaat alalam. loolu lañ koy ñaana ci barkeb alxuraan. amiin amiin coowal euh, Serigne Ablaye mu am lu mu def. am ñeneen ñu génn ne loolu mu def noonu du ay karaama du dara ay ay foo la maanaam dafa nax nit ñi daal ci ay ci technique boo xam si ne daf ko daf ko def noonu mais du du karaama Abdoulaye Diop Khass li mu def noonu ay technique la wala karaama man de maam Thierno wàll yooyu moom euh, daanaka ñi koy def duma leen wax dara waaye client yi nga xam ne ñooy gëmee ab sëriñ ci karaamatul xay ni ñooñ laa jéppi Euh, yàlla xam na ne maam Thierno su ma ci seetutoon yàlla garab gi nga romb ci buntu kër gi. Mm. ma jël fay xob def ko xaalis fii sa kanam. Mm. duma ko dugal sama biir poos ñu naan est-ce que génn ci poosam sama loxo laa koy téye ñëppay gis. waaye nag pa euh, ñoom Ablaye Diop xaas ak yooyu taxut sax ma mën ko dama koy dégg nii rek yaa ñuy def dëggalu ma ko ña leen di weddi weddu ma ne la ñuy weddi lees lees war a weddi la waaye dama ne la euh, karaama am na. karaamatul xay ni nag mooy ay fen yoo xam ne ci bëtu nit ñi la ndax baatu xay ni biñ ci dugal moo tax xam nga karaama buñ ci yemoon rek ñoo xam ne karaama am na waaye karaamatul xay mooy loo xam ne day doon ay fen ci kaw bëti nit ñi ni euh, loolu nag euh, Abdoulaye Diop Khass li mu def xëy na mën naa nekk ndax am na moom man lu mën a nekk la karaama na euh, yombul nag ci miim réew. waaw. ay jël xobu garab def ko xaalis ak euh, euh, togg jël euh, fourneb kese togg ci attaa ak yooyu mën naa nekk ci jëf nga bañ a jëfandikoo benn produit loolu lu mën a nekk la waaye nag yombut ci mim réew fii moom ñu ci bari ay karaamati waxin loo xam ne ay fen la ci bëtu nit ñi rek la ñuy jëfandikoo du ma ne am du ma ne am am mun kenn mënu ko nag am nañu ko man xëy na yow man ko man maam Thierno xanaa déggoo li ma la wax léegi suma ci setu ton yalla fi ñu tok garab gi may rocc ci xop suma ci liggey limay wërdu ba noppé bu noppé mu doon kayit loolu loolu loolu yow paré nga pour def ko jaxran gaay gis wala waxtu moko na may def maam Thierno bis bobu yalla buma tekkati dara ci aduna ah mais baba tu est gaay du ne da ngay dormir rek maam Thierno xam nga dafa am benn baat bu mu la waxoon hmm. muy biñu doora tambalé a dama la waxon na la yalla du duma ci wax ak liy ñëw kum xeet yi nga xam ne dafa ne ci kanam di ñëw xam nga loolu waxoon naa la ko mm-hmm. ñàkk pexe tax ma ciy wax ak client yi forcé ma si bay bëgg a ne ma munta ñàkk waaw xam nga yow mi mat nga ma seede waxoon naa ne du ci wax mm-hmm. waaye maam Thierno man de li may xam ci lu nëbb yëpp su ma ko doon wax <laughs> bari na sëriñ yoo xam ne kenn dootu leen déglu waaye dama laa bëgg a xamal na rek maam Thierno loolu kenn du ko gëmee ab sëriñ karaamatu loo xam ne même bu dee da koo def muy dëgg it karaama kenn gëmeewu sëriñ ab sëriñ li am solo moy client bi bu ñëwee ci yow nang ko défa résultat bu ma am ci ñëwee dana dama bëgg alal fexeel ba bu nga noppé na am alal bu ñëwee né kayit la bëgg fexeel ba bu nga noppé na am kayit wala bo nga né ko sa xaalisé ak ndax man non lay liggéey man dal lima gëm moy résultat pa pa ay karamatu may ngi yoy yooyu. yoy hmm. yooyu taxut daal man dal wax dëgg to fi mo moom. taxulaatoo foofu na man résultat mo tax a jóg. Ah, ñu bëggoon xam nak tay ñu ñëw ci abdou seigne Abdou khadir mu waxal ñu comme yaa ngi fii doon wax mën nañ ne depuis ay weer gars yi ñu ngi lay suivre ci seen bi ñu bëggoon xam Abdou Khadre Serigne Abdou Khadre digganteem ak ay waajuram lan nga ñu ci mën a wax. Euh, jërëjëf maam Thierno laaj nga kàddu gu diis man maam Thierno fukki at ak juróom laa def ci daara. Euh, diir fukki at ak juróom yooyu def naa fukki at ak ñaar ci àll bi waxuma la gis samay waajur waaye xam woon sax fan lañ féete ci àdduna wallaay lancé man ne ci dëkk bu sori. daara ban daara. jaar naa fu ñuy wax póotu yaakaar naa ñu dégg côté côté fële la leew na yaakaar naa boo rombee leew na noonu póotu jaar naa fa biñ fa jógee nag lañu dugg biir Saalum. àll bu ñuy wax dëkk bu ñuy wax fii waay yaari guy mi ngi ci diggante gin gi neew ak mbar foofu nag daanaka samay keesaan yëpp ci diggante boobu laa ko rey daanaka maam Thierno ma ne foofu di jàng ndax xam nga foofu ñoom lañ xewaloon mooy booy jàng fekk wàccoo alxuraan moom amul dem Touba moo tax mokkal alxuraan sax lañ daa tuddee naan passeport dem Touba boo masaan wax affaire dem Touba ñaa amugoo passeport <laughs> bi yàlla dogalee ñu mokkal si lañ door a ñëw ginnaaw bi am nañu fukki at ak ñaar yaakaar naa gisuñ suñuy waajur mm-hmm. eh, bi ñu ñëwee gis suñuy waajur ñu nammanti toog tegoog ñun daanaka ngën ngaa yàgg ñetti fan ñu delluwaat ci àll bi eh, yaakaar naa li ma lay wax ni yàggul dara ndax xam naa ay 2012 2013 2015 yaakaar naa suma ma jumut sax de mm-hmm. waaw eh, léegi bi loolu amee ñun maam Thierno suñu borom dañoo teel nattu ci ay waajur man jamono bi ma mokk mokkale alxuraan ba bind kaamin ndeysaan li naan suñu borom noppi na ci lépp sëriñ bi woo ma ba ma ñëw benn bis maa ngi koy fàttaliku bu baax muy taw mu ne ma dey noppi naa ci yow waaye dafa am digg bu may xaar kàddu googu dafa des si man mu ne ma dafa am digg bu may xaar pour buñ ca àggee ma wàcc la wallaay la si loolu nag moom moo ko xamoon xam na maaraay moom dañuy xam lu ñu xamul ndax boobu ab dongalaa rek bi ma waxee ci biir semaine boobu kum waxtu wi ay yor yor ma tedd ni for beud rek gënt ma surux ci ben foos ma xamna nak ngir mu reey a ñew teggu ñi ci ay fan sëriñ bi yewima ma bi ma yewé mu ak magal gu mag bi ma ñewé fekk waju bu goor bi feebar yàlla na yàlla doole ko euh bi mu ma am Ceerno lenn rek mu metti sama àdduna mm. muy bu ma bu bu fekkoon fii ma toll nii bi ñuy feebar fi laa tolloon ndax maam Thierno euh, cas ya ñu gaañoo ñoom ñaan ñëpp kenn ku si ne wala naa si yëkkati naa cas bu la gën a critique fopp maam Thierno fi mu ne nii loo xam ne sax bu nit doon bëgg dee sax nga ñaan ko yàlla rus la ci yëkkati ko sax maa ngi euh, suñu borom dogal nag ndeysaan ba ñuy toll si feebar wax dëgg yàlla yàlla nattuñ suñ kàttan demewu noonu am am bi mayuñu ko mu tëdd si noonu tëdd si noonu tëdd ba su ne ko suñu borom jëlee suñu waajur bu góor waajur bu jigéen bi euh, tenj ko moom it bi mu ko tenjee bàggal ak juróom benn weer yaakaar naa daal lañ rawante mooy hmm. lu metti juróom benn weer bi mu dem bi sama waajur bu góor demee euh, juróom benn weer rek la ñu toog sama waajur bu jigéen topp si mu metti lool Hmm, waaye nag euh, suñu borom noppi na ci lépp euh, ndax bi ñu demee si la ma lu bari si xam-xam bi wuy si waaye maam Thierno waajur bu kër bi hmm, li tax sama yaram di daw benn bis euh, jamono yi may door a jóge si daara ji dama doxantu ji timis nii rek romb ko ci mbedd bi yalla xamna na ko moy mbedd bobu nga romb ci wetu kuraas mbedd bu mag bobu mm-hmm. ay timis ni mi ngi tambale la ma fekk ko mu tok fofu ci digg mbedd mi ndax ma ak mom dañ da joolo man sumay genn rek touti euh, mom bu genné touti rek man ma genn ma nak dajje ak muy wagnou ko mom mu tok ci digg mbedd bobu euh, di bind ma way góor gi mom lan lay bind ni ma ñew ba jub ko mu jóg ko mu bi ma toge fe yow la doon ñaanal kàddu googu maam Cerno heure bu si sama xel demee rek eh, sama yaram day daw te sama waajur góor daf ma bëggoon lool sama waajuru jigéen yi ku mu wàllu yu yëngu muy wàllu ñaani ay sëriñ sëriñ dañ ko ko wax yàlla xam na ko eh, moo tax jamono yi may door a jóge daara ja dafa ma ko doon wax te boobu xamaguma dara mu ne ma sëñ diw de ak sëñ diw mas naa faa dem ñu ne ma sa doom ji nekk daara ja de te jàng ba wàcc alxuraan bis dana ñëw danañ ko dégg de ne ko kooku de du ko ñuy merloo nag del moytu muy te man dafa am nu ma yàlla bindoo man kenn du ma jam te boo gisee disons bi ma jël samay ñaan naan damay garanté yooyu benn xaal la boo xam ne suñu borom ma ko def ci man man man nanguma ku ma yàpp ci lenn mm. nee na moom sëñ bee ko waxoon nag ne ko kooku du ko ñuy tàngal xolam moo tax heure su masaan ñëw fekk ma ma lalu ci biir génn ma rek sama waajur bu jigéen fa amu def ni rido bi xool ba xam lan la amoon ñëwantu ci man lool tey sëñ bi waajur moom dafa xaw a sori lool ci xol waaw na leen yàlla yërëm xaar leen àjjana comme ni ngay waxee histoire bi lu metti la rek kenn ku ci nekk boo sañoon ci sa àdduna daal bu lay yàlla di may barke bu lay yàlla di may yenn yi say waajur dañ ciy teg ba kon bu la mais tamit yàlla sunu borom moom li moom mooy li ñuy wax du maye lépp dalay may lii xañ na lii rek xañ na day dugal yàlla ci sunu borom maanaam yàlla na leen sunu borom daal xaare àjjana te ñu bañ am kersa ci yow ba kerek nga leen di fekk. allahumma amiin comme que fekk gi moom yàgg yàgg dafay am yàlla na sunu borom gën a doole suturaal daal ba du ñu am kersa ci yow xam na kon. comme ñëw nañ ci waajur yi ku ne ku ne waajur aussi ne nga wax mbokk kon say mbokk ginnaaw bi fi say waajur bàyyi ko naka nga dundee ak ñoom. waaw jërëjëf sëñ maam Thierno euh, xam naa bala may gën a lekk waxtu bi euh, man yàlla daf maa dimbale samay mbokk dañ maa teel a baxel euh, ndax mooy li ma la wax maam Thierno suñu borom dafa noppi ci lépp. waye man amut sama ben mbokk bu ma massa yap ci dara nak man sama mbokk kunda jek dañ ma massa memba ci la même bama ma duggagut ci bi sax dañ ma tegoon ci place bi ma nek ni bi ma fi man dolliwuma dara ci sama diggante sama mbokk ndax dafa fekk ñom tegoon nañu fo nopi ne melni dañu xamone li euh motax ñomit ñoom it leen di ñaanal moy yalla nañu fi dollee yag te wér ñong koy ñaanam fu mbokkum nek rek ci biir aduna ñaanam senegal képp koo xam ne it eh, ci fam bi nga bokk ak ku ci bokk te am ay waajur ak yi maam yi jiitu yàlla na suñu borom dool leen yërmande hmm. yaa ngi ñaanal mbokki njaay ni yàgg bi te mbokki njóobeen waaye baax na walaay <laughs> gis naa ne amuñu njaay baax na <laughs> ñu ci mel ne sa client yi nga xamante si ne dañuy ñëw di liggéeyandoo ak yow yenn relation nga am ak ñoom ah, maam Thierno ñoom it am nañ ci tawféex ñoom ñëpp ñuy dégg damaa am ci ñoom lu jafe te xam nga ne yombut kuy déglu tamit dana xam ne yombut man maam Thierno damay dañ may boole client tey tey ñu war a jëflante ma ne ko temps nga may jox amagu ko de ne ma baal ba weer dee ba noppi dem jële ay client boole koog ma ci koo xam ne xamagoo lu mel ba noppi nga dem jël sa mbokk di ko boole ak moom xam nga loolu kóolute mënut a paase loolu. Mm-hmm. te yu bari ñu dégg man. loolu laay dund ak ñoom client bu ma mas a am rek jubawuñ ci kàddu andi laan nga ma keneen ndeysaan léegi-léegi sax dama lay ñeewantu damay mujj xëcc la na léegi la la doon laaj sax bàyyi naa ko kaay ma ñaanal la ci gratuite loolu dund naa ko kiliyaan yu bëree bëree bari loolu nag am qualité ci ñoom ci yow mënu ko paase loolu nag maam Thierno na ñu gën a may suñuy kiliyaan am cofeel ci ñun te yëg ñu mooy li ma lay wax ab sëriñ dangay ngay def résultat wala nga baax mm-hmm. man su ma demee ba noppee def résultat damay bàyyi dem seeti beneen liggéey boo gisee fi na sëriñ su bari dañuy wax naan ñaan di garante déedéet du garante de ndax xam nga maam Thierno yàlla la ñuy ñaan fii kenn joxe joxewut man nangu naa dogalub yàlla ci may ñaanal maam Thierno mi ay këyit amu ko ma daa dina ko maam Thierno suñu borom daa dëppale wut suñuy mbir kat man kat li ma mënoon yëpp def naa ko waaye amoo loolu la yàlla dogal waaye xam nga lan laa nanguwut nangu dogalub yàlla ci lekk ñaqu jàmbur wala léwut loolu moom duma ci nangu dogalub yàlla man képp ku ma jël sa ñaq bu ñu yàlla jubalewut dama naan la diw nga ne maa man la yàlla jubalewuñu léegi ma joxoon nag mi ngi nii dama nga xool beneen sëriñ daal boo xam ne dañ la mën a ñaanal. maanaam su fekkoon ne man dama ñëw soxla nga ñaanal ma am kayit. Hmm. benn kayit bu ma doon lijjanti exemple lu mel ne visa. Hmm. ma dem may ñu visa bi. su su ma ñëwee ne dem naa sëñ waaye visa bi ma ko. Hmm. la ma la jotoon a jox da koy jël nga delloo ma ko. yàlla xam na ko. su fekkente ne lànk naa rek. kan la kan mooy lànk naa moom non comme nga jox ko nit ki nit ki waa waaw mën am nag léeg-léeg nga jox ko nit mën nga ko jox nit mën la sëñ bi loolu sama xel xalaatu ko waaye boobaa nag leew na la xam am na sëriñ si wax sax daal ne boo fekkee daal la la war sa si jaadaga yëpp def nga ko boo ko lekkee leew na la man nag weddiwuma leen wax dëgg yàlla waaye lii man sama dund la man la concerné daal yow daal noonu ngay liggéeyee daal waaw kay noonu laay liggéeyee waaw loolu am na solo kon gaañ képp koo xam si ne rek am nga looy lijjanti lu mu mën a doon lépp rek sëñ Modou ci lépp lay yëngu wàllum ñaanu feebaru yaram wàllum këyit wàllum listixaar lépp daal loo xam si ne doomu aadama dana ko soxlawoo boo leen si jokkoowee ak moom incha allahu da ngeen ci am la ngeen ci bëgg bi soob yàlla comme ni mu ko waxee su fekkente ne it yàlla mi dogal dogal na mu ngeen séq ak moom it te say mbir lijjanti ko wut comme ni mu la ko waxee. Hmm. moom doo la nga ko a jox dana la ko delloowaat kon loolu defe naa lu am am solo la kon daal di leen jokkoo moom ci seeni soxla daal sëñ Abdou Khadir yan ngay jox mbokk yi xanaa nag da am loo teg loxo. waaw jërëjëf maam Thierno mm, xasida gi moom jóobe nii laay bañ ñu kii ko xamoo ñoom daanaka moom amuñ fiñ benn njëriñ <laughs> ndeysaan macha allah bu ko defee li nga xam ne dañ ko baaxee client yi. te muy lu wér lu xaqiiqa loo xam ne lenn lu si ne ñi koy wax ñi ngi koy liggéey te benn buñ ci wax dana bari client yu la wax ne man de masoon na maa jox bii mu expliqué kon li ñuy liggéeyee moom la ñuy maye. Mm-hmm. Euh, bokk na biñ ciy njëkkee mooy lu jëm ci wàllu cat bii ma ci joxe damay maye dong nag waaye ku ma ko def sax boo ko gisul nag ma woo xam nga fa yow waaye ku ma ko def boo gisul nga woo ma jinjeer ngay njëkk a wut mm-hmm. wut puso. su ma expliqué client yi ba dañ wax ne mas na ma ko jox bo amé pousse yi dërëm yi wala ñaar dërëm yi baxna bu ko defee euh, bu jinjel bi nekké ni dañ ko ciy jam ci benn cat ba pousse bi ag ci beneen cat du génn nak du feul waye boko jame bu mag rek li dess si pousse bi da koy dam dem sol légui nag doomu jinjel bobu nga xamna and na naag leneen li nga jamon ci biir pousse bi xam nga dess na ci biir jinjel doomu jinjel bobu mom nga jël bolé ko akup dërëm ak doomu laaj nga takk ko ci kàttanu yàlla amut ku la mën a catu sagar bu weex na nga koy awee def ko téer a ndigg ci kàttanu yàlla maanaam jëlal doomu bu laaj waaw jënd jinjeer hmm. ak puso ak ñett yooyu waaw léegi nga jël puso bi hmm. jam ko ci junjeer bi waaw ba cat bi bëgg a génn ci kaw hmm. bu cat bi bëgg a nga bayyi waaw bu ko jam ba mu fël dal waaw bu mu fël bu mu génn. légui bu duggé ba ca biir biir ba nga xam yëg ne daal dugg na ba ca biir man nga dam puso ah, ok sànni dammit waaw nga jël euh, junjeer bobu waaw boole ko laaj bi. ak dërëm ak akub dërëm. Hmm. def ko téré tak ko. tak ko sa téere di téré dëgg rek. sagar bu weex nga ko sagar bu weex nga koy ok dem ñu awal inshallah ko. allah ko def da nga mucc ci cat mom yaakaar naa dootoo dem ci benn sëriñ naa ko catag naa nga ma nangam na ma sëriñ ci baal nag <laughs> xam naa koor lañ nekk moom faaw ñu maye mhm. euh, beneen bi ci des maam Thierno dafa jëm ci wàllu bopp buy métti bopp buy métti nag dafa am façon mhm. comme tey nag du émission bi daanaka du ci xóotal waaye ci gàttal am na ñoo xam ne raba leen koy def am na ñoo xam mhm. dégg ko daan sama genn ngaalu bopp bi mooy métti gàllaaj bu ci gaaw la nag waaye kum raw de déwénati ajjuma gi ñu jëm mooy gi mujj ci koor gi xam ma gi ñu jëm laam déet waaye en tout cas daal ajjuma gi mujj ci koor gi lay doon waaw ajjuma gi mujj ci koor gi da ngay bind alam tara ila rabbika kayfa madda silla walaw shaa la jaxalahu saakinan summa jaxalna samsa alayhi dalilan foofu lay yem mm-hmm. bu ko defee boo ko bindee da koy bind ñaar bi da nga koy jël raxasee ko sa bopp beneen bi nga def ko téere bopp takk ko kum raw nag ci koor gi lañ koy bind waaye boo ko defee da nga ko ak boobu buy métti inshallah kum comme neex na kon buñ agge bay bo bind ci lu bari sa mbokk mo ci yene nga jox ko ko incha allah euh, beneen bi maye moy ku wax mam ci na wax ubbiku na mom ci mbiri la bo karange wo ba kenn mënu ci yow dara it wax deug yalla da nga soxla yi njóobeen ni soxla <laughs> dem di jënd ay ak yoy nga xamne danaka ñom xam nañ ndax gani njaay ni ci kër gi <laughs> bu ko defé bu ba ubbiku ku ko soxla lii moom maam Thierno même ki nga xam ne borom place la sax dem ba mu yàgg daal mu gis ne place bi daa tàmbali di bëri ay jafe-jafe clients yi ñëwatuñ tëju na daal tëju gu mu mën a doon rek ci àdduna. Euh, da ngay fexe ba nga wut cent 129 mbiskit bisu dimanche nga koy tàmbali nag euh, doom mbiskit bu ne nga jàng ci yàlla latiif loolu moom xanaa ko jàngut sax xam nga ko. yàlla latiif loolu ñëpp xam nañ ko xanaa yaa latiif teg ne yaa latiif teg ne yaa latiif teg ne ba 129 yi mat 129 mbiskit yooyu nga jël ko sarax ko. bu altine nga defaat ko talaata nga defaat noonu àllarba noonu alxames noonu ba samedi mu mat xam nga kon am nga sept jours. Mhm. waaye boo ko defee ko ubbiku da nga ubbiku ko ubbiku da ngay ubbiku incha allah. ah loolu am na solo lool mbokk yi kon sëñ moo leen doon may ñaan yooyu nee na ngeen def ko nag te ko def boo ci gisul. maanaam ak yokkute ci say mbir. Mm. daal di jokkoo ak moom bi def naa la nga waxoon de waaye gisuma dara. allah dina la tegaat ci yoon bi wala mu xoolal la say mbir lan moo ko tëj. jërëjëf sëñ Abdou Khadir léegi dañuy daal di tëj mais ci biir tëj gi balaa ñuy tëj dafa mel ne sëñ Abdou Khadir da nga am daara joo xam ne si ne da nga koo fas yéenee taxawal. yi alxuraanul karim. ak yan soññee nga ciy def pour mbokk yi nga xam si ne ñoo ñuy seetaan te bëgg lu baax ngir euh, bëgg def seen dere seen ñaq daal ci lu baax. Euh, jërëjëf maam Thierno alxuraan de. Eh, la ma daan wax laa wax dama ko bëgg te nangu ma ko bokk kenn bay boo ñu cërale ma ko rek eh, beneen ba mooy eh, liggéey boobu maam na bëgguma woon sax di ci wax waaye comme suñu boroom a dogal loolu bari ay nit yoo xam ne ñoom ñoo bëgg lu ñuy dugg rek ñu yëg ko waaye même bu dul suñu client tamit nag képp koo xam ne dangaa daf ngaa am yéene liggéeyal yàlla rek moom man nga cee participer bu la neexee wax dëgg yàlla ndax daara ku ne xam ne ne kërug yàlla ni nga xam ne jàkka néegub yàlla waaye daara kërug yàlla euh, xëy na programme daara ji ak ni muy doxee yooyu moom bu ñu demee ba ci kanam euh, xëy na euh, jëwriñ bi dana leeral lépp ki nga xam ne moom la teg loolu ci loxoom nga xam ne kuréel bi nga xam ne ñoo seq liggéey boobu moom moo ko jiite moom loolu dana ko leeral waaye daara ji daal mi ngi fi Touba Bofel incha allah la ñu fas yéene mu doon ko mooy daara alxuraan joo xam ne dañ fay jàngale alxuraan suba ak ngoon bëgg nañ tamit lu mu néew néew néew mu jël lu mu néew néew daal xam naa soxla nañ ci mu mën a jël 400 nit lu mu néew néew moom. ñu jël 400 dong. waaw 400 yi dong bëgg nañ ko suñu yéene la nag euh, waaye lii daal lañ bëgg lu mu néew néew 400 dong 400 dong yooyu tamit euh, bëgg nañu euh, mu doon ay dong yoo xam ne dañ leen di jàngal alxuraan. ku toll si xam-xam daañu la jàngal xam-xam euh, yaru diire yi dañ leen fa koy dañ leen ko fay yar macha allah mooy comme ni suñ daara ji nga ñëwoon. xam nga mais daara jàng ñibbi lay doon wala sans internat. waaw danañ nangu jàng ñibbi danañ nangu jàng féete waaw ñaar yëpp danañ ko nangu nangu nañu jàng ñibbi danañ nangu jàng féete bu ko defee bu dee ñi nga xam ne dañuy jàng ñibbi nag ñoom moom dañuy am sensu euh, ñu boole leen xam-xam ak alxuraan. ndax xam nga fii jamono toll daanaka ñaari ñuy boole français beeg alxuraan ji ñaari koo ci nekkal ab diir rek day dem moo tax dañuy bëgg profité bu gone gi ñëwee ñu gaaw def ci moom xam-xam mu xam diineem même bu àggulut alxuraan ji mu xam lu bari ci diineem waaye liggéey boobu daal ñu ngi ciy woo mbooleem koo xam ne rek euh, lu baax moo la ñor euh, naa numéro yaa ngoogu bu fekkee kuréel bi nga xam ne dañoo nekk euh, Amérique ñoom it danañ leen booleeg soxna Ayda Ba incha allah jombut danañ ci dikkaat. Euh, jox leen numéro boo ko defee mbooleem kuréel yi nga xam ne dañoo nekk Amérique wala client yi nga xam ne dañoo nekk Amérique yëpp ak ñi nekk France ak ñi ne feneen te bëgg see liggéey kenn ku si ne danañ la wax kan ngay jokkal foofu pour bu fekkee da nga ci am yéene euh, sa yéene nga mottali ko ndax daara maam Thierno lu ci waay def defaloo ko Abdou Khadir Ndiaye eh, sa bopp nga ko defal du liggéeyal yàlla liggéeyal sa bopp la ndax daara mooy li nga xam ne Euh, tey maam Thierno bi mu ñëwoon fekk may liggéey daal ji mu ma am sase ndox bi sottil ma ko ci ciment bi sase ndox boobu yow daal ji bu demoon junni at bépp donga bu fa jàng suñu borom dalay seddi lu maam Thierno lu kawe kawe la bépp donga bu fa jàng rek sa sase ndox boobu nga sotti woon sa ciment bi yokk gaasaas bi sax suñu borom dalay seddi yiw même boo demee ba néewatoo fi sax yiwa dala fay fekk kon loolu liggéey bu kawe la ba tax na lu ci waaye def euh, xeeb ko mm-hmm. ñun nag maam Thierno du ñu woote leen lu dul alxuraan amul lenn lenn lenn lu ñu woote ndax nit ñi nga xam dañuy wax ne lu ñuy dugg nañ ko yëg bu soobee yàlla suñ benn dugg doo nga ngeen di yëg muy alxuraan waaye amul leneen leneen lu ñuy sàkkuwaat ci àdduna ba tax na kon képp ko am yéene liggéey si moo xam ñi ne ci dëkk bi la ñoo xam ñi ne ci bitib dëkk bi la kenn ku si ne daal ñu ngi la koy yëgal euh, lépp loo ci am yéene liggéey rek bismillah kon mbokk yi niñ ko suñu Abdou Khadir waxee dafa fas yéene incha allah taxawal benn daara bu mag fii ci Touba ak Mbacke mm, daara joo xam ne si ne dina jël ba 400 personne ci yéeneem mm, nag kon nag tegu xeer wi sax defe naa fas yéene nañ ko def fan yi allah allahu rabbi ci lañu bëgg a fas yéene teg xeer bi képp koo xam ne daal am nga yéene jàpp ci al alquran jàpp ci daara mën nga jokko ak sëriñ Abdou Khadir ci numéro yooyu nga xam si ne moom mooy affiché incha allahu lépp loo ci dugal rek dana dugg ci daara dana dugg ci alquranul karim kon ñu képp kuy def lu baax daal ñu ngi lay woo ci daara ji nga xam si ne moom la sëriñ bi fas yéene taxawal waaw xam naa nag daara ji danañ ci gën a ñëwaat ci yaatal